du dégg du yoon loolu nag euh, nekk gis-gis euh, kii di Abdou Ciss euh, ci lànkum ñàkk jox kii di Ayib Daffé mandataire Ousmane Sonko ay fiche de parrainage. loolu même démb ba léegi maa ngi koy dégg depuis démb ba léegi maa ngi koy dégg ci journaliste yi ñu koy wax usmaan kenn waru ko xañ ay sañ-sañam. bu dee dëgg rek la ñuy wax te yàlla rek tax kenn ku dee yaag sa bàmmeel nit ki li mu war lool bàyyi ko ak moom politique politique la mais après politique ñun ñëpp ay sénégalais lañu Ousmane du guinéen du marocain du italien sénégalais la comme ñu Sonko la sant tudd Ousmane Sonko dëkk Casamance nañ ko bàyyi bu waree def élection na def élection ci jàmm ak salaam dégg nga bu ñu ko xañ ay sañ-sañam loolu rafetul waaw lool wax dégg naa yoon teg na ko loxo ma mais tamit kooku nañ ko bàyyi yoon li ñu waroon def ñu bàyyi yoon ba yoon xañ koko bu ko yoon xañee ñu xam ni yoon moo ko xañ mais un un nit un rek ñëw ni ko noono duñ la ko jox duñ la ko jox loolu tamit c'est pas normal ñoom waruñu ko ko woon xañ waroon nañ ko jox fichier rek bu ñu demee ba ci yoon yoon ni nag moom léegi duñ ko duñ nekk na ci yoon mu ngi ci kii nangam nangam duñ du du dem bu boobaa ñu xam ni yoon mais lii boo ko bàyyee nii tamit dañ naan politiciens yi ñoom ñoo ko def du yoon a ko xañ gis-gis yi ci bile affaire nag nekk lu wutee foofee ca Grand Yoff jàngat bi ma ci am mooy Ousmane ko comme ñoom dañ ne dañ desudul parti am reye ko ci liste électorale moom du am fichier parrainage mais membre parti am ñoom am nañ droit am seen mouvement wala dara wut leen puissé dem wuti leen parrainage no du yoon parce que liñ ko teg moom du yoon mais nag comme ñoom ci seen doole li ñu wax lo loolu rek lañ mën a def parce que parce que bu ñu defee leneen seen doole boobu ñu doon wane day daal di bëgg a naax saay quoi. ñu xalaat ni itamit que lii di recours bi nga xamante ni parti bi bëgg na ko duggal du mujje fenn. non recours bi même buñ ko dugalee du aboutir du jàll même buñ dugalee recours parce que xañ xat nañ leen bedd yi ba pare ñoom lu ñuy def pour suul leen ci loolu rek la ñuy dëkk mais duñ leen may benn opportunité pour ñu mën a jàll. ci loolu ñu yaakaar ni wut plan B moo nekk li nga xamante ni moo mën a jàppale bile parti. ñoom ci seen biir ci biir Yewwi Askan Wi ñu seet benn candidat. jiital ko moom mooy seen avantage pas ñu bañ a dépendre ci Sonko parce que bu ñu dépendre rek ci Sonko itam dañ leen di annuler rek dañ leen di reye yaakaaruma ko de parce que xeex la rek xeex la de xeexla la de xeex parce que ñii fi ñu ŋànk nii bu ñu bàyyee rek am defet bu ñu ja dañoo jàpp point nag duñ ko bàyyi mukk duñ ko bàyyi mukk lu leer laa lay mais loolu loolu lu baax la parce que ñoom seen xalaat yëpp état bi mooy lépp lu bokkoon ci Ousmane ko nañ ko écarter xëy na nag du ñu mën a écarter cinq candidats yëpp il faut kenn des ci kooku nag ñu jàppale ko mu dem. man de bu doon man may tànn Guy Marius Sagna ah parce que bëgg na réewam ba muy xeexal réewam booba nekkagul dara kon bu nekkee dara dana jàppale réewam man d'accord naa ci moom. ci seen xalaat bu gàtt ñoom jàpp nañ ni rek système de parrainage bi nekkul leneen lu dul suul ay adversaire politique. adversaire politique rek la loolu rek la sa gars yi adversaire politique la rek parce que nga xamante ne yow leer na la ne am na ñoo xamante ne wóor na la ni seen parrainage du dem seen parrainage du dem lu war a mat soixante soixante onze xaw ma soixante ñaata parti la ñaata ñu war a dem soixante onze xaw quatre-vingts c'est trop quand même. trop bu ñu fontoo nit ñi dëkk yi ñu gën a mag ré ëpp ñu fuuf fuuf ñeenti nit wala juróomi ñun ñooy dem élection mais sénégalais kenn ku nekk xam nga dafa am ñoo xamante ni da nga yëngu boo ba ñu xam ne yëngatu nga nga kii rek mu ne la dinaa ànd ak yow lanu bàyyi loolu nanu bàyyi loolu pare parrainage bi tamit man liberté war maa ngi la koy wax fii del xool ñu bëri nañ leen rek recalé kenn du ñu jàll dañu mbëb mbaw nii rek dañu mbaw di dem rek mais demuñu fen fen fen fen man sax maa leen gën a populeere yàlla xam na lool mo loolu loolu lañ ci jublu parrainage amu fi woon depuis 1960 bi ñu amee indépendance ba léegi parrainage ñu fi soog a am entre 2000 ba léegi ba 2023 mais parrainage mosu fi am loolu yëpp pour éliminer ay candidats la ak ay bunt parce que boo xoolee élection 2019 Boun Abdallah Dionne dafa ne quatre candidats mooy am mais effectivement quatre candidats yooyu moo am kon lu ñu programme ñoom la ba pare mënuñ ko dindi mais naa ci boppam moo ba moo bokkul ci démocratie baaxul baaxul parce que kii nga bëggul mu sa adversaire du de du ma sa dem danga koy baare rek te ki nga yaakaar ne dafa am doole toujours yaa ngi wut noo ko suulee jël na suq yi bëri ñoom daanee leen loolu dong lay wut mais bu dul loolu kii mais loolu moom du jàll. Mhm. parce que ñoom seen candidat Benno Bokk Yaakaar mënoo gagné parcelle bi nga dëkk fay gagné réew mënu nekk dañuy sonn rek merci beaucoup. xibaar bi nag démb la génn ci réunion bi nga xamante ni direction général des élections woote woon na ko ginnaaw li ni nag bile parti di Pastef fësal na ab bataaxal di xamle li teguwul ci yoon ba tax rekk ñoom dinañ dugal ab recours altine bi ñu digmal